asalaamaaleykum mbokku internet yi safoo di seetaan seen site internet Ngoy TV te ñu ñëw fii nii ci caaro yi seet si bébé armé mu doon bëre ci euh, korité bi passé ñu doxantu tey ñëw seet si ko fekk fi gars yi ah mafia bi mu fas yéene waxtaan ak euh, ñoom tey acca bébé armé ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah bisimilah inna wali yàlla. Mhm. lay fay Malick. Mhm. yaa ngi ci jàmm. ci jàmm bu gi. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli ci yéen di sant sama ñaari waajur. Mhm. di sant ñi fi nekk yëpp ñi fi teew leen ñoom ñëpp. Mhm. sama papa yi fi nekk ak sama mag yi sama grand yëpp. Mhm. maa ngi leen di bégee waaw. acca nga jóge ci combat bu rëy Korité nan nga doon préparé combat bi. waaw pare ko rek. sama papa yi jóg topp sama ginnaaw. ay ku ci mel ni ñoom papa Cheikh Ndaw ñoom Alaaji Fay ñoom Serigne ñoom Baye Sall production yi. ñoom Mbay billaay dafa taaw sama combat yi da cee jàpp bu baax a baax ñoom talaa ñi ñoom ñëpp daal waa Thiaroye waa marché Thiaroye waa xaar yàlla ñëpp a ci jàpp waa marché bi yëpp billaay sama papa Aliou Bade waaw ama seen fay ñoom ñëpp dañ cee jàpp ñu gis na ko combat bi ci biir koor gi ngeen jëloon combat bi ci biir koor gi nan nga doon entraîné waaw ci biir koor gi di xëy fajar dem entraînement mhm. suñ ndogoo ba pare demaat entraînement mhm. contact noonu lañ ko préparé ok acha ndax ki nga don beral xamoon nga ko bu baax baax non même pas nak ah xamoon naa ko ni nii di ko dégg rek waaw ok bi ko jëlee loñu mënon wax ci ay qualité am avant ñu ñew ci biir combat bi non man mom xamal limay li may siiwar mbër bëriwul quoi hmm. man mom pour man man rek may mbeur ok waaw ah, li mhm. ma sama morom hmm. waaw ma jël ko ni rek pour mu ñew ma daan ko lo rek mo taxal ma jël ko ok ñu ñëw ci biir combat bi Bébé Armé dugg si sa waay dugg si ñu laaj ko mu ne moom du la may dara yow it nga ne doo ko may dara arbi soufflé ngeen raag xeex xeex ah mais Bébé Armé mu mel ni dafa sam xeex bi mais xeex bi arrasé woon na la mais da nga jékki-jékki bàyyi xeex bi dem jàppante bu yaakaar naa amoon nga ci ay tolof tolof ci biir jàppante bi lan moo waraloon loolu. waaw parce que dañoo ñëw nekk ay xale yu ndaw ñu ay mag topp suñ ginnaaw ay kilifa du ñëw asaala suñ combat waaw ñu ñëw xeex moom deful dara mu jàpp tee te fi mu jàpp dafa baax moo tax ñu bàyyee ko bëre bi ñu mujjee bàyyee ko bëre bi loolu la. mais yow dèjà xeex bi arrangé woon na la lan moo tax continué woo xeex bi. waaw dama xeex dama kaa dóor après ci la jël ko nangootul mu jàpp nangootul bàyyi waaw pusul pasul quoi. Hmm. noonu la demee. léegi bébé armé fu mu jëm. waaw bébé armé de nekk yoon rek. Mhm. waaw am fu ñu bët suñu kanam. Mhm. waaw di wax ñi ñu féete kaw ñu ma ñu sax ñu bëreeg ñoom mhm. waaw. ok acca euh, le bébé armé gis na asawaay keroog laaj naa ko. foog na ngeen leeralaat ko bi est-ce que pare nga pour mayaat ko saas pour ngeen bërewaat. non jamono yi ñu toll moom dama ka dépassé quoi. Ah. waaw. da nga koo dépassé moom dépassé naa ko trop. waaw ah. léegi nag kan nga soxla instant bii nii tuut ndax am na kuñ ma ne boo demee nga laaj ko ndax pare na pour bëre ak moom. ban bër la. Ajuma Lawbe. Ajuma Lawbe. waaw. non kooku du ma moom. ah du moom. lu tax. parce que su may bëree man damay bëree koo xam ne day dem day nekk ci yoon. Ah. mais du ma jël koo xam ne fu mu fu suufi paasufi non ajuma nag champion la de ndaanaan waaw mais ajuma lawbe ñu fi daan ñii demuñu fenn ajuma lawbe daaru fi ku ñëpp xam hmm. ok à moom it yow yow tegoo kenn bët koo xam ne tey euh, awaasam bu ñëwoon nga bere ak moom ci tabaski bi déguma à part ajuma lawbe koo xam ne nii teg nga ko bët pour awaasam bu ñëwoon ci tabaski bi nga bere ak moom waaw am na ndax am na benn booy bu ñu may wax dafa am bër bu Bambey mais moom ñëmewul ko day daw sama wa kor corté bi mak mom ñoo ko waroon a bëre mais daka daw diko wax budé mom moom déggé dama jël su dé ñëwé na nee na moom mooy borom bambay bambay la koy fekk dóor ko daan ko réer ak këram door ñu bi suñu kër ah bon aca mu ngi nonu Tapha Mbeur mom xam nga du won baat dina la tontu inshallah allah mais dama sétlu presque mbër yépp Tapha Mbeur la bëgga bëgg bérel lan mo nek sen diggante ak tafa Mbeur non man mom du question qualité moo tax may bëre ak mom mais dama gis li muy wax waa Ngoy parce que boo waxee danaa daan naa wangooy Ngoy gis ah. gisuma moom mu daan fa champion daanu fa kenn. ok benn la fa daan te élipuy ba muy bëri moom ñemewu la gën këram. Mhm. mu dem ba fi élipuy de jeexale mu ñëw daan ko. loolu tax ma bëgg a bëreeg moom. loolu tax nga koo jël quoi. ok. acca mu ngi noonu joxal ma sa waay après ñu ñëwaat ci yow. acca ñu ngi lay ziar. waaw. asalaamaaleykum. Mhm. waa Mati Thiaro yëpp. Mhm. ñu leen di ziar. kenn ku ne ci turam ak santam. Mhm. waaw. acca te ñu seet si bébé armée euh, gis nga ko combat bi passé stade Bambey tey boo amoon loo koy conseil mu dolli ko wala mu xaw ko kii tuuti lan nga koy wax ci suuru combat bi. waaw. bébé armée de wax dëgg fa yàlla moom na liñ koy wax bëri na bariwul ndax dafa fekk ne maanaam am na loo xamante maanaam boo koy bëre moom am ñun ñoo xam ne bu ñu nekkee si ginnaaw am na loo xam ne nii boo nekkee ba ci biir lam ji rek am na loo xam ne maanaam dootoo leen kii quoi mais dafa fekk ne maanaam xelu xele moo ko jàpp ak fougue du jeunesse mais fekkoon ne maanaam xelu mag kese kese jàpp na ko jour boobu noonu jour boobu combat moo ko moomoon mais nag dafa fekk ne xëy na bésu ñàkk moom du bésu am quoi waaw. mais wa wax limu fa li mu war ci combat bi yëpp keroog def nako tam bi mu bëree pare ñëw na ba ci man ne man ak tala dama fekk ne manam li nek sama ginaaw mo bëri amna la nga ma di asalo sama combat affaire yooyu mhm. yalla xam nako mais fi mu jàppoon xex bi non non mo doon avantage am quoi mhm. wa léegi yow lan nga gis ci biir combat bi ba mu tax mom mu baye xex bi dem jàppante bere. no xeyna nak nag nak xeyna gëna jëgë gëna a wa mais manam dal man maam dal limako warlok mom martial du dama koy def. boo amee combat wax ma ma def lépp lu ma ci mën ak lu mais dafa fekk ne maanaam xëy na nga xam ne maam ñoo ko encadré bu baax a baax a baax ñoom ñoo ko a jege. xëy na ñoom lañ ko conseillé ba nga xam ne maanaam bu ñëwee. mais mais yow yow ci sa gis-gis. boo ko doon conseillé maman boobu. muy xeex boy sonal waa ji ndax ñun nekkoon foofu di reporter man kuy sax def maa tiital. la demee ay kuy yoo xam ne bu dalee comme bari ko buy wàcc. léegi yow boo ko doon conseil staff boobu da nga koy wax mu continuer xeex bi wala da nga koy wax mu bëre ji. mooy yoon sax ndax man euh, coach Sow sax moom laa ko wax. waaw ah. rek bi ñu tasee fee ne. Mhm. nee naa ko man euh, bébé armé ak lu mu a xew est ce que pied gauche pied droite bi mu teg est ce que moom arrangé na ko c' est que moom la bëgg nag mais pied gauche man moom laa gën a bëgg maam mbër mu tëgg pied gauche moom laa gën a wóolu quoi. droite la. nay pig teg bañ a teg fausse garde. Ah. ndax fausse garde mu teg nii man maam daal. su ma su ma fekkoon daal ma am na lu ma ko ciy wax daal moom su ma seyoon moom mu génne ko. ndax fausse garde moom dafa wóorul quoi. ndax gisoon ni mu dóore sax mooy loolu mais fekkoon ne pied droit teg su dóoree rek après sa waay bu ñëwee bu ko remisee ma pour mu am dara doy yomb. mais après doo xool rek droite bee dóore bu dóoree droite bi day balaa moo ñëwaat après mbër mi sax pour maanaam mu te su moyee rek après bu ko bu ko fi rek mooy loolu. waaw ndax ah. ke euh, bandi 40 ans dafa jàppoon ka ne xeex bi arrangé ko moom kut kaa kut na jàppante ak sa waay ndax gis na benn action bu ngeen def noonu ba gën ci biti mm. action boobu waroon nga mënoon nga ñàkk foofu te loolu yëpp daw xeex bi moo la ko yebe woon waaw daw xeex bi rek mooy kii mais yàlla xam ne keroog jour noonu su fekkoon ne maam dafa ñëw rek dëggal boom ci xeex bi rek yàlla du gis dara darek ah. sëñ Fallou Mbacké mais nag xëy na ma la rek fukki jeunesse moo ko jàpp rek mm-hmm. buñ ñëwaatee dañ ñëwaat ci beneen facette ba nga xam ne gaan moo loolu noonu di sant la bu mee combat ñun maag sawaay ñoo nekkoon dugg ci biir di kat gaay mais amul kenn koo xam ne dañoo dem ci moom mu ñu xool bët ba nga xam ne maanaam waroo a jox xaalis ba duñ ko yéene barki sëñ Fallou Mbacke d'accord dajal nañ ko mu bokk ci gét naan ci meew moom lañ nekkat fii nii mais bu kenn gisuñu image yàpp ne maam dañoo bokk ak nekk ak moom fii nii bàyyi des ñun ñëpp man wax defa la ma ngooy am ba sans intérêt man su may personnellement man mu waaw ñoom ñëpp moom mbëri ngoy yu fay tàkk ngëm yëpp yëpp yëpp jam laa leen yéene waaw barke maam a Rafal du daaru du éri kaw du kër njuga mhm. du galo du ngéegéey du feneen feneen feneen ñëpp laa mi gaayan mhm. foo dem tey ngoy tey yàlla xam ne boo ne mu laa xam nañ ma yor naa seen numéro ñuy déggante waaw ñoom ñëpp laay ñaanal jàmm nag Uh-huh. waaw li ko ñaan la moom mii nag uh-huh. moom li nga ay di seen du ñoom nag yàlla na gis lu kawe seen jor uh-huh. ci bari sëñ Tuubaa Mbàkke na nag ci entraînement rek xam mooy loolu noonu incha allah waaw jaajëf waaw di nuyu sama xama kenn si man nag ndax wolof njaay def ne koo xamul noo ko def na dafa tax muy Ablaye Diouf ma fekke fii nii barke maam Seera Fall taxaw ma yiir ma suturaal ma bëgguma jooy bëggu sama bët du xong barke maam Cheikh Rafal wala azim du nuyu Baye Fall yëpp nag ñoom Axma mhm. ñoom Lamine Faye ñoom Alaaji Faye ñoom Etienne ñoom Baye Fall sama gaay yëpp maa ngi jaar di ziar di leen bëggee waaw jaajëf waay Moussa Ndiaye yal na saa borom waaw dafa la jàmm jaajëf barke maam Cheikh Rafal ñoo far rafet na aca bébé armé ñu del siwaat yow balaa ngaa ñëw ci sa lii sa waay wax mais suur boobu ñu gis bébé armé dog siwaat ci stade bi mbooroo bi la topp ay xele kese ah foo tourné presque benn côté bi yëpp Bébé Armé moom moo ko feesaloon lan nga sax ak booy yi surtout say ñi nga àndal ak waa Ngoy ba mbooloo boobu yëpp mën la topp. waaw sax ñoom jàmm ak salaam rek. billaahi booy bogal ma seen bop mhm. parce que defaluma leen lu tax ñu di ma topp. ki alxuraan gis nga booy yëpp man maay tax ñu bàyyi seen liggéey. dem esat billaahi walaay topp sama ginnaaw. loolu tax sama combat bi passé man ma ko asaaloo. parce que maam dañu Armé ba ma ne ko naam mu ne buy fooy sa yoon da nekk ci yoonu lamb te da nga cee war a jëriñu moo tax combat boobu nekkul combat moo waroon mën a ñakk billaay walaay te ay xale yu ndaw lañu ay xale yu tuuti billaay walaay taalaay ay booy ndaw lañu suñu max bi ñu la ko waxee doo ko gëm billaahi ay xale yu tuuti no film no femme no chain no wine no aya no mbibang billahi ngi lak anglais de <laughs> na mbira ngi lak anglais de waaw gis nga no ñu ay boy lañu ay ndaw ñoo topp suñ ginaaw waay billahi dañoo nekk ci yoon mm-hmm. to am na fu ñuy séntu surtout suñu grand yi topp suñ suñu suñu kii ci suñ grand yi topp nii am na fu ñuy séntu te boog nañ fa yegg bu soobee yàlla mm-hmm. waaw aca mu ngi noonu dégg nga Mourtala li mu wax ci yow ah nga ko yaakaar naa amoo dara loo ciy tontu waaw Talla moom dafa baax rek billahi da bax rek parce que mom moo fek fi yeen say kay kaay dem entraînement dima fek dima forcer billahi wallahi taala walaay ki lay tek lu metti ci li nga nek mo la bëgg rek alcorane ko dafa ma fek dima di dima forcé di digal di xalal tamit awma fayam moo ngi nii da ciy bu baax ak jiwi gay ak wa ñi dajje lansaar yëpp ma ngi leen di béggee billahi wallahi taala di béggee waat mbay mi ko mbay pass dajje japp dajje tek loxo bu baax baax rek alcorane di sant waa Caaro yëpp bàyyiwuma kenn waa Ngoy waa Ngoy yëpp maa leen sant waa Kër Juga waa Kër Joomaay waa Daaru billaay walaay su ma jógee ñoom ñëppay jóg man du ma meru benn dëkk ay dëkk may topp waaw. acca mu ngi noonu ñun itam dañuy sant ah, ndax ni ngeen di sant noonu la ñuy ah, suñu grand Baye Sall ana Moussa waaw xam naa dinañu dégg ah moom itam sérieusement suñu waay la ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax bokk na ci ñu ñu njëkk a jàppale nag wax dëgg fa yàlla ah di sant suñu gars yi nekk fii yëpp waaw ndax ñun ñëpp waa Ngoy lañu. acca mu ngi noonu dañ lay bàyyi nag nga jël sa taa sant ñi nga bëgg a sant ñëpp gërëm gars yi jàppoon ci combat bi tout ah mu ngi noonu. waaw di santaat waa Thiaroye rek waa mbet bi yëpp waa Pàcc Soble maa leen di sant bu baax a baax a baax bilaay wala ama seen pay di sant sama grand. Pape Ndaw Omo Fem billaay walaay taalaay damay jóge contact jóge contact mu yóbbuwaat ma entraînement entraînement ba pare mu di ma bokk suloo Omo mooy sama coach mooy sama lépp waaw maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di sant waa mbet bi yëpp ñoom Alaaji Fay ñoom Moussa Ndaw sam papa Aliou Badou billaay walaay taalaay ñoom ñëpp maa leen sant waa mbet bi bàyyiwuma kenn ku ma limu rek waaw moo loolu fàttewuma la boo limee da motal waaw maa ngi bëggee ñu bëree baree bëri. Uh-huh. di bëggee sama papa. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax billaay walaay su ma amee combat da ciy son bu baax a baax sama papa Bokar sama papa Abdoulaye maa ngi leen sant bu baax a baax di bëggee booy yi sama ginaaw tamit ku ci mel ni Aliou maa ngi maa ngi koy sant bu baax a baax di bëggee maa Abdou maa ngi leen di sant Aliou Sarr maa ngi koy bëggee bu baax Oustaz billaay walaay day son ci man di bëggee waa ngoy gëpp bàyyi ma kenn. soo limee da ngay juum billaay walaay taalaay wala mbaa motal mooy loolu mais maay sant képp ku yeewoo ngoy maa leen sant bu baax acca mu ngi noonu waa ah, di profité di sant waa Joal waa Ñoojoor billaay walaay Ibrahima maa ngi koy sant Ibrahima bu Joal maa koy sant bu baax a baax ak yàlla gis nañ taxawoon nañu bu baax ci combat bi passé maa koy sant bu baax acha kon mo ngi nonu sama gaay yi ah, mber sant na ñep ah man it may sant ñep di gërem ñep nan promoteur yi nak nañ gaaw ñëwaat ah ci tabaski bi ndax sérieusement war na mëna béré bu dé mbolo am na to bu ñëwé day def fu la def fayda ah. kon sama gaay nunglen ñu ngi leen di gërem yeen ñep ah di leen jaar bu baaxa baax acha mo ngi nonu waaw di béré waat di béré waat sama grand Serigne Faye billaay walaay kooku ama fee musa awma fayam sama lépp moo ko yor barki alxuraanu kayim daf may jàppale bu baax a baax a baax a baax c'est que ki la gën a jege daanaka moom ngay fare yenn saa yi mais sëriñ awma fayam barki alxuraan daf may jàppale bu baax a baax di bëggee képp ku nekk écrit ba seras maa ngi lay bëggee ndax man fa laa nekk fa laa jànge bëre maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp mbayu ma kenn di bëggee képp kuy takk ngem tamit ngoy maa ngi di bëggee di wax nañ ma jox Tapha Mbeur boobu wala amul frein nañ ma wala Tapha ma bëreeg ñom billahi walaay ñal ñoo jox ma dese ngooy. sinon damay ñëw Dakar ñom ñep dinañ ton wala dañ ma jox ñaar ñooñu wala sino ma ñewat Dakar ñoo dama ma dese ngooy. Ah. wala ma ñewat Dakar waaw. amul ben problème. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yeen wa aduna kep ko xamantene ni abonné go rek dawal ci Ngoy TV nga dem abonné nga mon di setan lu mon di duggal nga dem setan ko incha Ngoye TV c'est ñu leen di ziar dina ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen